dal leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz M TV Sénégal di leen jaajëfal si topp bi ngeen di topp seen bi moo ngi noonu Abdou mbaw député Benno Bokk Yaakaar moom Abdou mbaw mi nga xam ne nag bokkoon na si ñi doon dar kii di Macky Sall si jamono bi muy gouverner réewum Sénégal di ko jiite nekk président moom Abdou mbaw mii nag nga xam ne député la dafa mel ni nag gouvernement bu Sénégal jamono bi ni ñuy doxee daal neexu ko ba tax mu daal di yëkkati ay kàddu ba président Bassirou Diomaye Faye daal di xamle que ne nag nañu feeñal bépp rapport boo xam ne daal am na fi si at yi lay weesu tax moom Abdou mbaw génn ne nag gouvernement bi na bàyyi rapport yi te liggéey mu nekk kàddu yoo xam ne nag Abdou mbaw daal dina koy xamle di wax que ne nag gouvernement bi nañu liggéey nañu liggéey te bàyyi rapport yi rapport yooyee nag nga xam ne nag ma ngay commencé génn nag ñu koy fësal dafa mel ni kon daal yooyee rapport dafa mel ni bokkul si liggéey bi te nag lu ñu jàpp la nag ne bokk na si liggéey bi nga xam ne nag dina tax ñu daal di xam ñi nga xam ne nag luubal nan alalu réew mi moom Abdou Mbow mii nag daal dafa mel ni lu ni mel la tax na nag neexu ko dara ba tax mu ne nag gouvernement bi daal jamono bii dañoo war a liggéey liggéey lañu leen euh, maanaam fale kon nag nañu liggéey te bàyyi mbirum rapport yi nga xam ne nag ñu ngi koy yëkkati jamono bi di ko jibal te mën nañ ne nag démb ak tey mooy li nga xam ne nag mooy actualité bi gën a fës ci réewum Sénégal mbir mu doy waar mi nga xam ne nag ñoo ngi ko doon yëgle fale sa Touba mbakke di wax ko ne nag daa am ko fa doon jaay li nga xam ne nag moo di yàpp mbaam mbaam sëf mu nekk nag loo xam ne daal bi nu saytoo mbir ay information yi si gën a jib daal mooy que nag boobe xibaar ndekk wérul euh, daa demewul noonu daal mën nañ ne si ak tënk xibaar la boo xam ne nag jotoon naa fës loolu ñu ne nag daa am tàng naa bu fa nekkoon daal doon jaay li nga xam ne nag moo di yàpp mbaam mbaam mi nga xam ne nag moom lañuy ñuy sëf muy faral di daw Tuubaa Mbàkke ñu ñu ko fay gis muy muy daw lu bare bari sax nag mbaam sëf boobee noonu nag lañ wax nag moom la waa ji jàpp daal di faat euh, di jaay nit ñi tàng naa mu nekk nag loo xam ne daal xibaar la boo xam ne nekk na xibaar boo xam ne wérul moo ngi noonu